réew mi président jomaay Ousmane moom li ma koy faral di wax rek dama ne gor la goreel na jaam yi goreloo na gor gor la goreel na jaam yi goreloo na gor yi <laughs> xam nga liberté ni mu neexee ak ni mu mel sëñ bi ko fexe ba nga am ko ak sa réew nga nga taxaw yow maanaam ñëpp jàpp ne président moom danga ko mën a nekk moom danga liggéey lu la ko may ñëpp yéene la ko deux mille vingt quatre nga war koo nekk man koo nekk liggéey ba war koo mën a nekk nga ne ko fa ñukk jox ko nit maanaam li ma bëgg a wax fi mu toll mooy Ousmane Sonko dafa dem duggi duggi ab ceeb wala duggi ca marché ba jënd yam war a jënd yépp ba togg ba yekk ba noppi ba war a tiim mu jël ko jox ko ku xamante ni benn benn benn yalwaankat buy yalwaan mu ne ko jëlal mu ne ko yow nag mu ne koy déedéet man jëlal boo amee rek baax na xam nga mag ñi daanan def loolu daa nga dikk taaj ak ñam benn nit dikk daan ne la waaye yàllaa ngi yalwaan de nga yëkkati lépp nga jox ko xam nga Sénégal dañoo mën teraanga teraanga dañ koo xam lool daa gis koo xamante tamit daana toog ba guddi wala ba bëccëg muy dem yónni xale ne ko yëral ma kër gi ba xam ñu ngi togg wala toggunu wala dara cin càkk na fa ñu xool ñu ne cin tàkku fa ko jël xaaj dépassam daal koy jël daal ko koy yónnee ne ko taalal daanan toogi tamit ba mag ñi sunu mag ñu baax ñi daanan toog yàlla dogal ñu jox seen soxna depaas ngir mu war a dem marse kenn dikk daal ne ko kër ga dara nekku fa mu daal di ne ko dabal ma soxna sax mu dem dabi ko mu dikk mu ne ko ana li ma la joxoon dépasse mu ne ko mu indi ma xool mu jox ko ko mu ne ko waa ah, baax ne toogal déglu ma mu daal di koy jël jox ko kii ne ko demal moom mu toog di xaar xeeti teraanga yooyu fi amoon nag dafa mel ne teraanga yooyu ak ngor yooyu Ousmane Sonko mi def koo dekkalaat ñu ngi may nettali benn uh, dëkk boo xamante ni dañoo demoon bay nee na dëkk bi bin bayee am na ca kenn koo xam moom rek la ci yàlla wërsëgal toolam tool bi dafa doon tool boo xamante ni bu meññ la nga xam ne moom nawet boobu daal mennam moom rek moo ci baaxle moo ci yor tool boo xamante ni bu baax la lépp ña ca des ñëpp danoo gàntule wala njëréer yi ñoo lekk seen tool daal moom toolam yàlla dogal mu kii bi mu bayee ba àggal ba jëri gerteem ba bees dugub jaag yépp dafa dikk jal ko ci pénc bi ne leen yéen kat ñoo bokk dëkk bi da ngeen doon bay may bay yàlla wërsëgalu leen la ngeen amul amu leen man mii dong la yàlla wërsëgal lii nag du dugg sama biir kër fii laa koy teg ku ci nekk li nga ci war a am nga am ko ci yóbbu ko sa kër wala ku gore kooku sëñ bi mag ñi noonu lan xamoon ci taranga waaye Ousmane Sonko bi dafa mel ni valeur yooyu daf ko delloosiwaat président ni mu neexee ni mu mel ni mu nga xam ne adduna bi moom kenn fàgguwu fi lu gën a rëy diw sàngam président la amul taranga ju ko gën a rëy ci àdduna yàlla dogal nga am taranga jooju nga jël ko ne naa ko jox diw sàngam naa ko jox peuple Sénégal nga dem première daam ni mu neexee say soxna war koo doon nga xañ leen ko jox ko keneen koo xam ne ay soxnaam kii bu ne dama bëgg Sénégal dëgg dëgg ñëpp war nañ koo gëm lim def nag moom waxuma dara waaye royukaay la Ousmane Sonko waxuma la jiite Sénégal waaye imam yi nekk ci man bari yi mën na ko doon ab imaam la imam la boo xamante nii moo tax waykat bi doon na ko wax na suuf suufiyanke nga wala mu jaddit nga <laughs> lii moom lu mu yee salaat wëllër yi amoon ca mag ña la woon moom mu salaat ko moo tax macha allah yàlla fay na la Ousmane <laughs> eh, nopp lu ji laggal wéyal <laughs> jëlal sa bong loolu mag ñi daan wax naa la jëlal sa bong nottil <laughs> macha allah macha allah ñu ngi koy sant bu baax élection yi nag damaa gisoon ay analyse kat yoo xam ku ci mel ni Khalifa Sall daf cee defoon benn analis ne ñu invité ko Walfadjri mu ne eh, élection yi mënul am mënul mënul mënul nekk lu du deuxième deuxième tour dina am ne man ci élection laay dund ci laay dund xam naa élection deuxième tour mënul ñàkk kenn mënu ko gagné ci premier tour ndax jamonoy Diouf jamonoy Senghor wax a wax wax ba sonn ndax loolu Khalifa Sall waxoon noonu la demee te élection yi mooy élection yoo xamante ni ki gagné amul benn luñ ko defal loo xam danaa sàcc la wala njuñ jaaj buñ ko xañ xañ wàññiwut dara ci àqam kay kenn kenn ke moom ci koo xam ne da doon dem ci ñoo xam ne ñoo yore état bi nga xam ne deuxième tour naka jekk neen ko xamoon état bi mooy gañe tuuti ki ci toll waaye kii moom moo gañe ba raw leen ba kii te Khalifa Sall loolu la waxoon Khalifa Sall jàpp naa ne sa listixaar nax na la moo tax man bi ngeen di dem yàgg sa Seck dama ne ñii xamuñu Sénégalais yi wallaahi xamuñu Sénégalais yi maanaam Khalifa Sall du am lu bari sa Seck du am dara ñoom xamul na sénégalais yi ay intellectuel leen danoo fekk ñu tànn ba noppi ñoom ñu soog a jóg ñoom dañ leen waxuma la ñoom ñu tànn leen waaye danoo fekk sénégalais yi tànn ba noppi ñoom ñu soog a jóg ne dañuy dugg ci mbir mi waaw depuis deux mille vingt et ba léegi tànn nañ seen candidat ba noppi ne ko foo jëm fa la ñu jëm ñoom ñu néeg ba dar dernier moment ñu ne ñëw dañuy ñëw dañuy tànn dañuy organiser dañuy def nangam. te lii Ousmane songo <laughs> li ma doon wax ne Ousmane gor la garmi la gor la Ousmane songo moo fal maire yi fal ay maire jóge fa fal ay député jóge fa fal président allahu akbar am réew <laughs> nga fal maire yi fal député yi fal président loolu moom yow rek yaa ko fi mas a def wax dëgg yàlla jàpp naa ne boobu ci la Macky Sall xamee woon ne lii moom su demee dañ koy gañe su demee su demoon ne dañ koy gañe moo tax mu ne lii man duma ko du ma fi fekk ki ma fi yebal rek laa fi yebal waaye man lii duma ma ci fi du ma moo tax ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax di ko gërëm bu baax mel na am na koy woote ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. sëñ bi na nga def. <laughs> noo tudd ak fooy Serigne Gueye Espagne. Serigne Gueye Espagne ah Serigne na nga defaay. ñu ngi ziar di delloo ziar bu baax a baax a baax. waa jàmm rek. naka seen victoire. alhamdulilah alhamdulilah. ah di yaakaar jëm amit yàlla bu ko suñu borom tas amin amin amin amin ci barke Cheikh waa amin Xadim amin wallahi ndeysaan amin amin waaw dëgg yàlla yéen it moom tarkar yéen waa Tuubaa moom jàmbaar ngeen lool macha allah ah macha allah macha allah dëgg la Tuubaa dama <laughs> wane na kiyam moom wane na seen seen doole bu baax a baax a baax waaw wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan lu ci gën a waaw waaw <laughs> eh, dinaa ci ñëw dinaa ci ñëw moom de yaakaar naa ne département sax mënu koo gañ a bay gën a gën bay gañ <laughs> moom kay doy na waar doy de. doy na de. waaw. Ah. Ah, suñu borom akim la. Eh. <laughs> billahi maanaam day mbirum Ousmane Sonko day mm-hmm. wala su na ci mën a jàngataat bu baax waaw dëgg la dëgg la wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan képp koo xam ne yàlla ëmp na laal mm-hmm. yaakaar naa ne boo jëlee Ousmane xam ko teg ko ci sa kanam xool ay jaar-jaaram ni fi mu egsi tey nii waaw yaakaar naa war a mën a yore ci yàlla uh-huh, dëgg la wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ndeysaan <laughs> yow ayaat nag am na jëmm joo xamante ne wax dëgg yàlla mm-hmm. wax la ma tudd tur waaye kooku de yàlla muy ci yàlla murid bu dajee moom war war naa def ci moom loo loo mën ci moom. ah sa waay dara. ko wax ci yoon wi te dal ko ci. lu ko lu ko neex kay moo wax ko te moom ginnaaw moom bokkatu ci yoon wi moom waratu ta wax dara ci yoon wi daa war a bàyyi ñiy dund yoon wi ñu dund seen yoon. moom xasee murtat. Hmm. Ah, yàlla. ah. ah maanaam naqar gi sax mënut a ñàkk waaye boo xoolee la wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek. waaw saa weeru sëkk. waaye nag ginnaaw suñu am koo xam ne moom lañ gëm yaakaar ko te gënal mm. suñu lépp. Mm-hmm. suñu tay di mm-hmm. lépp lu nit mën a wax moom faaw buñ ko mënta faj daañu naqari. Mm-hmm. waaw. moo tax daal nañu nañu nañu dimbali maandu ñu ci suñu yoon. ñu ko ci laaj ñu ko ci xalaat soxlaa ñu ko ci dara. na jàpp ci li mu jàpp te bàyyi ñoom ci ñu jom yaakaar ko. lii daal sëñ bi tey jii moo moo moo moo ma naqari lool ci mystique ba léegi maa ngi xalaat fu mu ko war a mën a jooytoo ak fu ko war a mën a fajee te mënu ko ci dara parce que daal. dëgg la dëgg la ndeysaan man maa ngi jégalu baax na. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëriñ ñu ngi siyaara baax nuyu nu waa Espagne bu baax a baax a baax. ñun waa Espagne waaw daa leeru baax ana euh, mbokk yi jërë ngeen jëf kon 77 145 40 40 ñu àndandoo incha allahu rabbi euh, Ousmane Sonko ci laa doon wax Ousmane Sonko ma ne moo fal maire yi fal yi fal président <laughs> ci lu ñaari at lu matul ñaari at nga fal ci ay député ci réew mi fal maire yi fal président <laughs> allahu yàlla mën naa maye de yàlla loolu lépp nga mën koo wëlbatiku wan ko ginnaaw yow nekkoo nekkoo maire dong nga nekk bi ngay bëgg doon député dañ laa gàllankoor ngir nga bañ a doon ñu gàllan nga nga nit ñi député ba député yi kenn ku nekk xam na li am assemblée mësta am ñu gàllankoor la président nga dikk fal ab président jàpp naa ne <laughs> te danga ngaa jóge ci kaso ba tàmbalee fa woor fa ba ngay dem ci kaso bi da woor bi ngay génn ci kaso bi danga woor <laughs> booy dugg pale dangay woor <laughs> allahu akbar bis koy jàpp yow ma muy bisub ajjuma ñu jàpp ko mu julli ji juma ñëw ñu jàpp ko mu yendoo kooram kaso ba ca la doge ñu demati kii mu doge jiwaat ñu jël mbokk mi ci ligne bi asalaamaaleykum assalaamu rahmatulah ñuy siyaare bu baax a baax. sëñ bi na nga def noo tudd fooy woote. maa ngi tudd Modou Diop maa ngi woote Saloum. Saloum ana waa Saloum. ñu ngi fi alhamdulilah. yéen a ngi seetaan Tanime TV. waaw ñu ngi seetaan baax a baax. <laughs> Ah, ah, solo trop de. dëgg la dëgg la baax wallaahi. am solo noonu. ndeysaan ndeysaan ndeysaan daal ñu jàllale si mooy. mooy ñu fexe daal bu gone ñu bàyyi exibet bi daal naar bi daal moo xam naa su bëgg mi avancé. ah. ma ne naar bi li naan naar bi si bet bi. waaw lool waaw loolu de Ousmane wax na ko ci campagne bi nee na dama bëgg naar bi jóge fi. waaw ñu jëlee ko si réew mi daal. waaw si waaye man daa say woon na ko si jàppale. incha rek a leen ci dugal ma ne. waaw liggéey rek a leen ci dugal waaye léegi liggéey am. waaw moom kay moom lu ñuy ko ci boole. ndax waaw loolu war a jeex tàkk moom dafay war a jeex tàkk moom. par yenn saa yi mm. allah ko jële si ci day bay bu baax a baax. waaw jërëjëf kontaan nañ lool. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf jërëjëf. jërëjëf nuyu nu waa Saloum ñu ngi koy sant bu baax a baax mu doon wootee Saloum 77 145 40 40 ñu nekk fii nag nga xam ne moo di Tanime TV euh, ànd ak yéen nag ci. <laughs> élection yi nga xam ne ci la ñu jóge élection yi Sénat daa mel yaa ngi indi ataaya de waaw ma naan ataaya ba nopp soo naan ndoxu aynu aynu bi sëñ Ahmadou Badiou ñu ngi koy siyaare bu baax a baax a baax ba Mbàkke Bal yow moom bu ñëpp mi développé na bu baax a baax am nga xam am nga yar <laughs> nangoo liggéey loolu moom mooy développé am réew réew moom ku am yooyu rek am nga li li riis am am xam-xam nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla ba noppi jub ba noppi tamit ab yar am ab yar loolu moom jàpp naa ne mooy mooy développé réew mbokk yi tafaa ñëw naan ataaya boog ataaya da daa woyof moom ataaya kii bala <laughs> eh, ineer tegal na juróomi minute fii ci kii mu ngi nuyu waa diaspora bi moom ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax a ñu ngi leen di nuyu bu baax Barthélemy Dias nee na woon élection yi kenn mënta fexe ba den leen deuxième tour da am <laughs> ñoom yaakaar naa ñooy troisième position de jomaay euh, mooy première euh, kii topp ci nu mu tuddati euh, Amadou Ba topp ci Khalifa Sall yaakaar naa moo jël troisième position gis nga Idrissa Seck ni mu de ni ko ni ni ni mu wàccee gis man waxoon naa ko ne Idi jërul woon dem Idi bi Macky Sall demut woon demut demut rek ci la waroon a bàyyi bàyyiwaat. moom ñaara waroon a am Macky sàll defoon ko candidat am ginnaaw mburoog soolo woon wala Macky sàll defu ko loolu bi bi ko Macky Sall bàyyee dafa waroon a bàyyi bañ a dem élection yi moom ku amoon xam-xam li nga xam ne élection yi waa Pastef ñoo ko moom moom ku amoon Macky Sall bi ci amoon xam-xam moo tax demul nguur kenn du ko doyal ku ne xam na ne président Macky Sall doyalul nguur doyalul waaye xam na ne fi mu toll ci réew mi mënul dem élection te duñ ko gañe ak lin lin fexe ba candidat yépp bari ñu fexe ba mu doon lu toll ci ay fukki candidat ak juróom-ñeent loolu lépp gis nga ko sama benn xarit dinaa ko jël léegi ci kanam Moustapha Dieng nee na ma woon ay sero sero ngay gis moom te man li ma gën a jaaxal sax mooy waa piir waa piir moom jàpp naa ne man dëgg-dëgg bu fekkee wooteel nañ seen candidat bi jaaxal na ma ndax ñoom liñ yor ci ay kii dëgg-dëgg xawma ama ci lu leer de wax dëgg yàlla waaye daal jàpp naane ne woteelun seen candidat bi dëgg dëgg ndax li am man jàpp naa ne lu lu affaire yi seere seere moom ci muy jël troisième wala dara ñu jël mbokk mi dafa mel ne salaamaaleykum waa ñu ngi sant bu baax a baax jërëjëf jërëjëf alhamdulilah naka ñooy sant noo tudd ak fooy wote Italie laa ne Modou ah, si Modou na nga def ñooy sant Tuubaa baax baax alhamdulilah. ñu ngi leen saa dogu ngeen yéen. waaw ah, dogu nañ dogu nañ. leneen de. ñu ngi sant baax sëñ Modou Fall man daal li may digal équipe bu nga xam ñoo ngi ñu ñëw. waaw. mooy yaakaar bi nit ñi am ci ndax dafa am lu fi am loo xam ni Sénégal. waaw juróom benn bi rek mosu fi am. Mm-hmm. jox jël ay nerf yi jox leen arme ñu rey oh, oh. loolu bu boo liggéey keneen ku ñëw mën na koo def. Oh, waaw loolu kay moom sëñ bu dafa ñaaw dafa ñaaw sax bu bëggee sigil boppam mook jomaay loolu buñ ko bàyyi loolu moom mënu mënul am moom loolu moom jàpp naa ne du doomu mu moom loolu daal bu buñ ko bañ ko corrigé hmm. ëllëg keneen mën na ko loolu moom faaw ñu kii ko loolu koy jàpp naa dinañ ko kii bu baax a baax baax a baax dinañ ko corrigé bu baax baax ma ne loolu de ah, xam naa ne ñaaw ah. na métti na ñim dal seen kaw waaye loolu lépp ah, day ajuwaat ci nguur gi fi nekkoon ci seen seen émence émence yoo xamante ni génn na ba Sénégal loolu jàpp naa ne hmm. ñaaw na ba fu ñaaw di na ba ay sa total nee na mën naa nangu naa dem fële xaw ma nu mu tuddati fu wax ne foofu sax bañul ku ko fa woo waaye ñaaw na dafa dara jaru ko dara jaru ko dara jaru dara dara ay émence wane ko mu leer nañ Ah, waaw wallaay ah, lool de dëgg la. waaw sant sant jaata moom moom dafa alko rek. Ah, dafa dafa alko dafa alko loolu de waaw loolu de mooy turam bu kii mooy turam dëgg dëgg. waaw jërëjëf sëñ Modou jërëjëf Fall jërëjëf. jërëjëf jërëjëf sëñ Modou Fall di wootee fële Italie ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm 77 145 40 40 mooy numéro téléphone bi. tey ñuy def benn live <laughs> tey li ñu wax bari na de la ilaha illallah Amadou Ba it def na tuuti tuuti erreur xam nga sëñ bi élection yi ni mu kiyee ci guddi gi nga ñu nekk ci sa ginnaaw di la jay teeloo def ay félicitation nga toog naa da ngay dem ak dem ba ci say kii sees nga génnaat naa dama respecté yoon damay déglu yoon te déclenche bi am moom lu nit néew néew xam-xam na ne lii déclenche du déclenche deuxième tour ñu jël mbokk mi salaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi def. sëñ bi na nga def. Ah, alhamdulilah. barikaala noo tudd ak fooy maa ngi woote ah, Casamance. ana waa Casamance. ñoo ngi fii waa Bignona. ah yéen ñu ngi leen di félicité de. <laughs> waaw ñu félicité ñun ñëpp <laughs> ngi rafetlu. Uh-huh. ñoo changement bi. kay liñ leen di félicité sax waa Guinée yooyu dikkoon nar a woote sëñ bi ngeen fexe ba feeñal leen daal loolu lu lu <laughs> ah yëfi de ga dañ ko sante borom ba rek waaw wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ko sante yàlla yàlla yàlla yàlla jàppale amin amin amin ndeysaan amin amin joomaay joomaay yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yëfi yàlla yëfi woyof ci kaw amin wallaay ndeysaan amin amin amin ba hmm. ñoo ngi rafetlu émission bi bu baax. dëgg la ndeysaan dëgg la jërëjëf. ñu ngi leen di kii incha allah rabbi ciblé leen bu baax a baax a baax. waaw <laughs> <laughs> jërëjëf jërëjëf.